aa bi dañ naan wax na yàllaa bëgg gëñ gëñ na ba gëñ ci ne wërsëg moom moo ko yor te dana ko joxe moo tax kon dama bëgg ñun ñëpp suñ xeel dal ci wërsëg yàlla lu mu wax dëgg la wax rawatina lu mu gëñ fa wa rabbi samaayi wal ardi innahu la xaqun na ma annakum tantiquuna mu ne wërsëg du mooy boromam kom ni ngeen xamee ne kenn ku ci yéen sa kàddu du la mooy làmmiñu jàmbur ku ca mën a wax lu wërsëgu jàmbur ku ko mën a lekk kon bu ñu xebee bu ñu xeboo rek rafetal jëfin yi asalaamu aleykum aleykum ñe asalaamu aleykum aleykum ñe asalaamu aleykum aleykum ñe asalaamu aleykum aleykum ñe bul fàtte cliquer ci abonné bu ndaw pour vidéo wuñ munti doon nga mën koo njëkk a am bul fàttee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti doon nga mën ko njëkk a am lu bil asxaar yi ci njël yi wa fii amwalihim aji nekk la ci seen xalal yi xaqun cër li saayili ñeel ku ñëw di laaj si wal mahroomi ak kuñ xeñ ba manta laaj yëpp lañ daan jox wa fil ardi aji nekk la ci suuf aayaatun ay yu yuy tegtale wéet ak yàlla ga lil muwaqidina ñeel way hóoluña ñoo ko mën a jariñoo wa fii anfusikum aji nekk la ci seen bakkan yi ay kaawteef yu tegtala wéet ak yàlla ga afala tubsiruna lu taa ngeen seetatal ko xool ko wa fi samaa yi aji nekk la ci asamaan risqukum seen wërsëg ak loo xam ne def na dëxal leen ko ci mbugal ak ci xéewal fa wa rabbi samaa yi gëñ naa ci borom asamaan mi yàlla wal ardi di borom suuf ne innahu naka liñ leen dëxal ci wërsëg la xaqun lu sax la mislama annakum mi ngi mel ni comme yéen tantiquuna yéen yen ngi tudd ni ngeen tuddee baatab laa ilaha illallah mu dëggu noonu la seen wërsa yi dëggoo dana ñëw ci yéen wala dëggu na ba mel ni kenn ku ne sa làmmeñu bopp yaa ci mën a wax sa waxi bopp waaye mënoo abbu làmmeñu jàmbur di ca wax kon mënoo lekk wërsagu jàmbur sa wërsagu bopp yaa koy lekk kon gis nga ayaat yooyu yàlla gëñ na ci ndéefam yu màgg yooya moom mi bind lu ko neex sañ na caa gëñ waaye ñun ñi ñu bind ci moom rekk mi bind lañ sañ a gëñ Omar ibnu nee na dañ fee nekkoon di gëñ ci suñuy baay yi yonentu bi ne bàyyi leen fi seen baay yi te gëñ ci ki bind seen baay yi man kaana xaalifan fali yaxlif billaahi aw yasmut moo tax yàlla moom mi bind su ko neexee mën naa gëñ ci zaariyaat mën naa gëñ ci xaamilaat jaariyaat ak almuqassimaat yàlla gëñ na ci asamaan ay yoon la am comme ni suuf amee ay yoon gaa yi xam nañ ko ñi seen xam-xam màcc ci wàllu asamaan naka noonu tamit leen seen wax dara saxut tey ngeen ne yonent bi waykat la tey ngeen ne bukaaba la tey ngeen ne njabarkat la waaye tamit ñi ngi laaj bis penc ci kañ la bis boobu bu ñëwee mooy seen bisam mbugal seen toroxtaane la ña gëmoon ñu dugal leen aljana ñooña nag ñooy ñoo xam ne dañuy julli guddi di naafi la suñ xamee alal joxe ci asaka di ca saraxee dimbale new ji doole yi su ko defee tamit yàlla na gën ci wërsëg yi arab yi dañ wax ne yàlla bëgg gëñ gëñ na ba gën ci ne wërsëg moom moo ko yor te dana ko joxe moo tax kon dama bëgg ñun ñëpp suñ xel dal ci wërsëg yàlla lu mu wax dëgg la waxu rawatina lu mu gëñ fa wa rabbi samaayi wal ardi innahu la xaqun misla ma annakum tantiquuna mu ne wërsëg du mooy boromam comme ni ngeen xamee ne kenn ku ci yéen sa kàddu du la mooy làmmiñu jàmbur ku ca mën a wax lu wërsëgu jàmbur ku ko mën a lekk kon bu ñu xebee bu ñu xeboo rek rafetal jëfin yi na ñu xeboo rafetal hutin yi kenn du fi jug lu dul sa wërsëg a jeex nit ki mënu koo muuse mënu koo defee ay pexe ba lekk sa wërsëg mënu koo muusee ba jël sa làmmiñ mi di ca wax ku ko man yàlla nee na nag loola ni mu dëggoo ni la wërsëg dëggoo kon war nañ ci war nañoo dal xel ci wërsëg yi wax ju ko gën a wér xamut misla ma annakum tantiquuna wax ju rëy rëy la aaya bi ci tegu muy hal ataaka xadiisu dayfi ibrahima yàlla ngi ciy jàngale gani yonentu yàlla ibrahima ya ko gane si woon ñii ne juróom ñaar lañ ñiine ñett lañ ñiine juróom lañ lu ca mën a xam jibril ci la bokk malaaka nag nit day sol mbubbam nit ñu ñëwal yonentu yàlla ibrahima sol mbubbam nit ibrahima foog ne ay nit lañ ku xamoon teraanga ba mu leen gisee rek dalal leen ñi dal toog ci saal bi mu ne xaar leen ma ñëw laaju leen dara dafa ne xaar leen ma ñëw mu départ yollee ko dem ci soxna sax am nañ gan de ñu dama tedda de luñ leen war a defal añ nag ñu bokk juboo ne ko nañ ul menn xar ñu def ko mis wi lakk ko jox leen ko kon ndeke li gën ci lu ñuy terelee gan mooy yàpp li gën mooy wuñ lakk noonu la Ibrahima def de mu dem uti benn xar lakk ko te xar ma rëy lool sa minin la alquran wax waaye nag uteeg léegi jamono ji léegi-léegi dangay am gan mu ñëw nuyoo nga commencé di ko laaj kañ nga fa bàyyeekoo seet ba xam añ bi wàcc na laam déet moom kañ nga fa bàyyeekoo bu ngeen foo jaaroo nag laa fu mujj foo jaaroon jëru ko demal indi teraanga yi rek teg